Journée historique à la RTS. Ce mercredi 20 mars 2024. Inauguration de la nouvelle tour R 10, suivie de la réception de l'ancien bâtiment entièrement réhabilité. Par son excellence, le chef de l'État Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et je tiens à vous rassurer avec ses infrastructures futuristes, le chef de l'État installe la RTS dans l'ère postmoderne. Mobilisé derrière le directeur général, le personnel entend lui réserver le meilleur accueil. Très ravi de voir ce public venu nombre pour lui dire merci, Monsieur le Président de la République, pour cette Inauguration, nouvel tour de la RTS. C'est ce mercredi 20 mars à 16h.

21 euh, mois après tay ñu war kaa inauguré ànd ceeg suñu jitu rew le président Macky Sall ñuy waxtaanee nak suñu smart building bi nga xamné ne di étage la euh, tay nak dañu ci dalal ay responsables yo xamante ñoom itam dinañu ci indi ay leeral yu ama am solo suñu waxee euh, directrice capital humain mu nekk madame euh, Fatou euh, madame Fatou Dioum moom mi nga xamante ne nii tey moom mooy responsable capital humain day waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo parce que nag ku wax capital humain nekk ñiy encadrer employé yi ba ñu mën a exploiter seen i ay compétences loolu noonu yëpp madame Fatou Dioum dina si indi ay leeral mais gis-gis aussi bi mu am ci tour bi ndax am na impact bu am solo am ci personnel lu RTS loolu noonu yëpp dinañ ci indi ay leeral rawatina nag jigéen ñi ndax gis ngeen ne démb ñu ngi leen di wan li nga xam ne moom moo di Euh, crèche bi ak salle de jeu bi nga xam ne jagleel nañu ko euh, njaboot gi loolu yëpp dinañ ci indi ay leeral waaye Aminata Thiam moom itam euh, directrice contrôle de gestion la moom itam dina indi ay leeral ndax ñoom nag ñooy mesurer en temps réel performance yi nga xamante ne la ni entreprise bi am na ko ci li muy mën a dugal ci koom-koom ak génne ñoom itam dinañu wax naka la ñu gisee tour bi ci seen wàll ñu waxtaanee ko dafay doon lu am solo waaye tey nag faw ndaw ñi aussi dugal seen kaddu ci waxtaan bi ki ñi dalal ci loolu mu nek Youssou Gueye président amical des jeunes ndax ñoom itam taxaway bu am solo lañu am ci kër gi di RTS ndax sa su nek événement yi bu ñu amee dañuy juk ñu am nu ñu taxawee waaye seen taxawaay aussi dafa nek taxaway de tous les jours loolu nonu yépp dinañ ci indi ay leeral yu am solo waye la ta loolu lepp dañuy nuyu suñu kilifa euh, madame Fatou Dioum mom mi nga xamanteni mom moy directrice capital humain euh, am mbégte ak contentement recevoir ko ci plateau djégg Jéeg ak Këram madame Dioum ma ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax maman maa yaa ngi merci beaucoup ci am contenté ak mbégte. di mhm. dal ci sa plateau. Mhm. Euh, di ci vraiment kontaan bég lool. Mhm. ci bés bi ñu nekk nii tey ni nga ko waxee sànq. xam naa bu ñu xusee ci waxtaan bi incha allah dinañ ci wax bu baax euh, macha allah mu melne tay tey suñu bonheur fay refléter ci suñu kanam ndax ku ñu gis xamné dañuy xaar événement bu reuy dans quelques heures rek ñu recevoir suñu njiitu rew le président Macky Sall ngir mu ñëw inaugurer suñu tour bi nga xamné euh, ça fait maintenant 21 mois ñu nekk ci liggéey bi euh, liggéey bi nak tay dal dinay aboutir ci li ñuy gis ci ay images ci lu nice a nice euh, madame Fatou Dioum mbégte boobu moom xam naa ne na ci yow feñ na ci personnel bi. xam nga ku wax RTS. Mm-hmm xam fi ñu vraiment en tant que RTS parce que yor capital humain RTS population RTS Sénégal la bu ñu chance yàlla boole directeur général mu am vision euh, ak générosité mais vision boobu euh, parce que ku xam nekk réhabilité coopération lañ ko RTS bi muy nekkee RTS ba tey lu ñu mën si am ci siège rek coopération moo ñu ko may. tout à fait mais ci vision wu Racine Talla directeur général u RTS. ak ndimbalu président de la République parce que bi mu amee vision tam président da ci impliqué wu bu baax. ba tax na tey ñu am mbégte mi nga wax nii tey. muy loo xam ne fierté la pour agent RTS yëpp. ndax ñun ñu fekkee RTS ñëw ci ancienne maison ñëw nouvelle maison. Mhm. nekk médecine d'entreprise nekk ci beneen niveau. Mhm. tey dañu am mbégte wu dajale suñu njaboot. tout à fait parce que loolu mooy premier impact bi nga xam tour bi dina ko am muy mbégte lool nag ñu ciy sant di gërëm bu baax suñu directeur général mais di ci jàpp di ci sant tam suñu président de la République parce que moo ci jàppale tamit moom moo impliqué l' état du Sénégal mhm. jël les financements de l' état du Sénégal jàppale ko ci audiovisuel public mhm. ba tour bi mën a taxaw tey macha allah euh, tour bi nekk investissement de souveraineté nekk loo xamante di leen nii euh, dafay am solo lool ci askan bi en général ndax duñu jug ci di fësal que ne euh, RTS mooy moomeelu askan bi moom la askan bi di gisee boppam ndax itam moo leen di refléter tey ñu dalal Aminata Thiam

problème yooyu yëpp daf ñuy féete gannaaw. macha allah les techniciens rassurent nañ ñu ci côté boobu nee nañ que énergie bi ce sera à gogo. Mhm. du point de vue euh, informatique et tout on aura plus de problème incha allah. incha allah moo tax vraiment ñu ngi kontaan ci kii bi. di gërëm nag suñu directeur général Racine Talla. il a été très ambitieux. Mhm. xalaatuñu woon ne. Mhm tout bien de notre de fils. Wallahi, wallahi. Mais machallah, j'ai nos préoccupations, agents, famille, jeunes. Mhm.

ndaw ñi euh, gën a mën a nekk si jàmm Youssou nuyu naa la dalal la sama plateau. maa ngi lay fay maman di nuyu sama jigéen ñi ma toogal di gërëm Sénégal di gërëm mbokk téléspectateurs yëpp yi seetaan RTS di rafetlu invitation bi di sant di gërëm aussi président de la République parce que lii buñ ko mënee ginnaaw yàlla ak moom la di gërëm directeur général monsieur Racine Talla mm-hmm. nga xam ne bi mu ba léegi ay actes lay je pense que lii comme on dit souvent rek defal ko boppam bu doon moom moom rek mënoon na ko ci bañ a fekk mhm. mais vision moo tax mu def ko ne vision mooy jeunes ñi mooy femmes ñi mooy ñëpp mhm. donc ñun mënuñu lul sant parce que lii nii je pense que pour ñun ñi nga xamante ni jeunes ñi nga xam ñooy porte nandaaru tey dëkk beeg république ñu xam ne mën nañ ci jàpp mhm. sukkandiku ci mën liggéey bi gën a gaaw yëpp loo xamante ni mën nañ ko sum mu gën dox parce que environnement yi déjà nekkatul benn déjà boo waxee bâtiment moderne wax wax renouvellement matériel. Mhm. di nga wax lu bëree bëri. tout à fait donc je pense bu ñu ci waxtaan bi ci kanam a kanam dinañ ci ci gën a mais li mën wax daal mooy ñu ngi remercier président de la république. tout à fait di jaarale remerciement bi ci ci suñu directeur général muy Racine Talla Mbaye parce que il faut être un visionnaire pour def li mu def. defalu ko non seulement pour la RTS mais mu koy def. pour ñi nga xamante ni ci sous région bi yëpp lañ nekk. tout à RTS bâtiment la. bâtiment boo xamante ne ñi nga xam nekk nañu Gambie wala ñi nga xamante ne mën nañ dem sax ba tijji fa école yoo xamante ne école de formation la yeneen région yi yeneen dëkk yi fi ñëw di di ci mm-hmm. parce que RTS quoi qu'on puisse dire tamit mm-hmm. école la euh, l'occasion aussi ma rendre hommage capitale mais bu ma ko mm-hmm. ñi nga xamante ne yàgg nañ fi liggéey ba yàlla tey def nekkatuñ feek ñun donc ay anciens lañu yoo xamante ne tey ñun buñ ñu fi en tant que jeune mhm. donc war nañ am njukkeel boo xam ne wala nañ ko delloo di leen remercier aussi te taxaw bi ñu taxaw ETS ba tey ñu ñu mën mhm. ce qui fait ñun tamit war nañoo mën a li ñi nga xam mën ñu ko bàyyi mhm. ñu defar ko ba ñi nga xamante ni ñooy après mën ci tegu liggéey ci je pense que loolu bu ñu ci defee Sénégal mën na jëm kanam incha allah. Sénégal mën na jëm ca kaw ca kanam ci lu baax loolu mooy objectif fu RTS loolu moo tax lépp loo xamante ne dafay jëmmal réew mi rek dañu ciy dugal suñu loxo euh, bu baax a baax ndax mooy euh, la télévision de tous les moments te loolu dafay baax aussi ñu koy fësal ci lépp lu ñuy mën a def euh, ci biir loolu nag dañuy daal di xuus nànk dem ànd ak suñu réalisatrice xool li nga xamante ne moom moo di travaux yi ndax xëy na tey taxaw na mbir mi nice na design bi kenn weranteetu ko ne ñu xarañ ñoom ñoo fi jaar waye fa jaar ba exi fa lañuy dem seeti ci ay image delu ci wat ci suñu plateau gëna mëna yaatal waxtaan bi moom nak ab invité la woon ci journal télévisé bu 13h fi ci RTS fanwéri at ak juróom-ñett la Lamine cham am nekk ci ab chantier bu mag a mag fii ci RTS ci wàllum tabax lii di tour bile moom nag jaaroon na ci ay école yu mel ni ESP bu Dakar ak fi nga xam ne moo di EIP d'Égletons ca France j'étais basé en France, mais plus à l'international parce que c'est mon premier ligue Martinique je suis fait FH grand travaux pour nekk France avant ça, mais suis école à l'école. c'est mon dernier stage fin d'études. d'étude yóbbu ma Martinique pour la commencé fa la terminer. Ligue suis fa ñu embauché ma ma euh, si projet central thermique, projet Boumaxa, donc euh, une grande expérience professionnelle en Martinique dans les dom-toms. J'ai fait presque trois ans. Dès le suivant en Ile-de-France sur Paris liggéey comme conducteur de travaux ci ay chantier bâtiment bâtiment résidentiel et immeuble appartement ak boîte de tudd Sasectam ci atum 2015 Lamine Thiam dafa daal di jël Abdogal, ngir delusi si ci réewam daal di wéyal trois ans gannaaw loolu mu daal di bàyyi lépp dellu ci fi nga xam ne international Lata ñu Djel, ci atum 2021 fi nga Maudit et compagnie sahélienne d'entreprise. Ah, bi suis sama premier audiovisuel ba ma au Burkina en 2021 à ñibbisi au Sénégal et si rejoindre le groupe CSE au sein de CSE Immobilier c'est mon premier projet au sein de la CSE Immobilier en cours le projet bi démarré à un un projet la plateforme logistique de jazz, bien nga été def nañ récemment tamit mangi occupé une fonction au niveau au sein de CSC e IMO je suis le directeur du pôle immobilier et développement Nous euh, ngi élargir suñu activité promotion immobilière aussi on a des projets résidentiels d'appartements am la dafa def depuis mois de mai mois de mai ou 2022 la ramante ak mom, bima ma def sama entretien pour rejoindre chantier bi Lima ma si mom, si diggante ñaari at yi ma nekk ak mom, mom moy un na nit ko ramante ne du kafantu moom gëm na ni ñun ndaw ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk Sénégal lépp lu ñuy jéggaane si bitim réew rek ñun am nañu compétence boobu noonu loolu moo tax liggéey ci wetam day nekk challenge boo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi xëyandoo ak moom rek yow dalay neex parce que dalay responsabiliser te bëri bëriwul ci ñi nga xamante ne dañu nekk ay njiit di liggéeyloo ay nit mën nga toog toute toute une semaine doo ko sax gis mais moom chaque jour mu ngi ñëw te saay bu ñëwee dina fexé xol képp ko xamante ne yaa ngi liggéey ci chantier bi ci li nga nekk ndax mu ngi avancé ndax am nga ay contraintes dalay bëgg ba dalay dalay wax ne boo amee blocage wooma ma. lu mel ni euh, Paris ba ca Dakar jaaree ko ci fi nga xam ne moo di Martinique Lamine Thiam jaar na fu Bari, am fa ay jaloore yu rëy ci wàllum li nga xam ne moo di génie civil tour bu RTS bokk ci réalisation yoo xam ne Lamine Thiam def na ko fépp foo xam ne jaar na fa ci fii ci Afrique ak ca bitim réew wa mu mel ne euh, tour bi histoire personnelu RTS la waaye aussi histoire Lamine Thiam la ak yeneen i ndaw yoo xamante ni la nii à travers tey suñu travaux yi ñoom itam wane nañu seen ay compétences ñoom itamit fësal nañu li nga xamante ne moom moo di seen ay xam-xam ba tax tey jii ñu gis ci seen bopp bu baax a baax madame Fatou Dioum euh, loolu di wane ne que ne mbir mi suñuy wax li nga xamante ni la nii mooy nañuy consommer local euh, tey dafay baax tamit ñi nga xamante ne ñoo ne ci réew mi xarañ lool ci yenn mbir yi nga xam ne dañu koy soxla ñu leen di utiliser ci yooyu ndax autant dañ daan gis ne yenn batiment yi buñ ko daan tabax dañuy woo nasaraan si wala chinois yi wala japonais yi ñu ñëw defal ñu ko waaye léegi am nañu ay ndaw ñu xarañ ñu jàng ba am di jaase yu kawe ci ay bâtiment donc buñ ko réaliser da xam ne fii macha allah liggéey bu am solo moo fi jaar mais liggéey bu jaax ci yoon aussi moo fi jaar. Hmm, dëgg la maman. Euh, loolu day wane aussi ne que enseignement supérieur Sénégal aussi baax na. tout à fait.

audiovisuel du foo du caaxaan il faut nga am ay nit yi nga xam ne ñu xam seen liggéey lañu te ndaw yi ñi fi nekk itam ñu xam seen liggéey lañ tout à fait te ñu ci bari maman fi dañ leen formé comme Lamine Thiam wax ASP la génnee Sénégal la génnee mhm. donc du moom rek bari na soo seetee bâtiment bi ndaw yi ci liggéey yëpp mhm. pratiquement Sénégal lañ leen formé RTS ñi fi nekk di liggéey ñëpp je peux te dire que quatre yi Sénégal lañ leen formé ñun ñëpp fii lañ ñu formé ay pur produit école sénégalaise lañu donc euh, loolu pour te diir que ne Sénégal am na capacité yooyu te RTS tam dañuy bàyyi xel bu baax ci loolu parce que euh, tour bi dafa am loo xam ne euh, daf koy laaj daf koy laaj bu bari moment ci changement wu façon bu ñuy liggéeyee parce que fi mu nekk nii dañ tàmmoon xëy na nekk ci environnement boo xam ne ku nekk ak sa bureau mhm. euh, ñu tas trois sites pratiquement la ñu nekk nekkoon nouvelle maison bi am ñu nekk euh, boulevard de la république médecine d'entreprise bi sax dañ ko délocaliser woon ndax xat ndax bâtiment bi japonais bi yàgg mais niveau bu RTS toll ak vision du directeur général dépassé woon na bâtiment bi te vraiment yéene pour plus de rentabilité pour plus de performance de l'entreprise il fallait agent yëpp nekk benn mooy li nga wax sànq première fois bi peut-être dañ doon xalaat am bâtiment wu un deux étages mhm. pour mën a rassembler personnel bi gagné économiquement Aminta wax nako sank parce que diggante ñaari bâtiment yi carburant la booy kii la énergie boy dépensé la. ak yenen ak yenen ak perte de temps. Mhm. mais loolu yëpp tay grâce à ce bâtiment là dañ koy dañ koy jéggi. muy loolu. Mhm. benen aspect bi moy environnement bi ma lay wax. Mhm. parce que on va être obligé agent yi de travail dans un environnement collaboratif. tout à fait moy que ne espace yi dootul nek espace bu tëju. espace open lay nek les gens seront obligés de partager beaucoup de choses. des bureaux donc day laaj un changement de comportement profond tout à fait dans le cadre du travail. tout à fait euh, loolu dafa nekk lu am solo démb Mame Ndiaye euh, teewoon na fi ñu sax au passage euh, techniquement expliquer nañu tour bi la ñu ca def lépp mais tey yow tey en tant que directrice capital humain fu ñu wax directrice capital humain wax bolo wax personnel bi wax lépp loo xamante ni leen nii rek xëy na bu nekkee yeesalaat la ci ñoom pour que seen nek kin gëna mëna yembu dañu fay def ben point ñu waxtané ko mais tay dispositif bi ñu jël yëpp ba taxawal tour bi ba mu mëna faciliter nekkinu personnel bi après nag lañ cay toftal mais naka la personnel bi di comporté woo ngir mën a euh, jëmmal tour boobu noonu ngir mën a préserver tour boobu noonu ba ñun itam buñ koy légee ñeneen ñu fekkee ko ci état bi nga xam ne moom la ñu ko joxee woon loolu en tant que directrice capital humain loo ñu siy wax. waaw mama mooy li ma lay wax sànq rek. Mhm. dafay demander ñu xam ne alalu mbooloo la. tout euh, te mbooloo comme ni ngay wax maanaam dootul nekk yow kenn. Mhm. da daal ñu nga bokkal. te soral boobu dafa bari ay aspect mm-hmm. ci aspect comportement la ci aspect xam ne fii liggéey moo ñu fi boole mm-hmm. mais tam fi ngay liggéeyee temps bi nga fay def doo ko def sa kër donc commodité yi nga war a am yëpp danga ko war a am mais da ko bokk ak say nawle mm-hmm. donc loolu dafay demander ñu bàyyi xel bàyyante xel ci lu bari ci couloir yi ci bureau yi xam nga li ñuy wax naan parfois dañ koy wax mais kii dafa bari façon mën nga nekk ci bureau di liggéey nit sa téléphone taal mu fort wala nga jël sa kii alors que yaa ngi jàkkaarloog nit donc yooyu yëpp c'est des comportements à éviter. tout à yi nga xam ne dañ koy bokk fumeur non fumeur ñu war ko sóoraale. Mhm. liggéey bi ñu xam ne tamit ñun ñëpp ñoo bokk ko mais dañ koy bokk ci anam bi nga xam ne kenn du lor sa morom. day nekk ci anam boo xam ne ku ci nekk di nga ci gis boppam RTS dina ci gis boppam audiovisuel public dina ci mhm. loolu mooy premier acte bi nga xam ne moo war a nekk mooy que nit ñi xam ne dañu war a xam ne on est dans un environnement boo xam dañ koy bokk te ku ne bokk rek. ñu muñalante ku ne bokk rek ñu bàyyante xel mm-hmm. ku ne bokk rek ñu xam ne ku ci nekk rek am na comportement boo xam ne xëy na waroo ko am parce que da ngay sóoraale sa morom mm-hmm. donc pour dimbalee ko liggéey bi jaar yoon ñu mën a liggéey ci comme ni ñu ko bëggee parce que en réalité bu DG bu ñu defaree jàppalee defar ñu tour bu mel nii mm-hmm. pour ñu la pour ñu liggéey ci kanam anam yoo xam ne ku ci nekk danga gis sa bopp ci li ngay liggéey te pour loolu am nag faw ñun ñëpp ñuy bàyyante xel faw ñu xam ne lu ñu bokk la te lu ñëpp bokk ku ne danga ci am sa wàllu bopp. te comme li nga wax dafay laaj tamit ñu bàyyi xel ci entretien bi. tout à parce que bâtiment la boo xam ne tey bu ñu ko jëlee ñun juste wax na ko sànq. ce bâtiment là et va exister te dañ ñaan yàlla ñun liggéey fi ba retraité sade ko suñu ay morom. sade ko suñu ay ndaw sade ko suñu ay rakk. Mm-hmm. yu war a ñëw te noonu lay demee incha allah. donc pour sa faire nag il faut ñun tam ñu maintenir bâtiment boobu. Mm-hmm. ñu maintenir ko nag day bokk ci set bi day bokk ci. maintenance bi day bokk ci aar bâtiment bi te loolu ñun ñoo koy def kenn duñu ko defal tout à ñun agent yi ñoo koy approprié wu mhm. xam nañ ñoo ko moom suñu moomeel la mhm. kenn bañ ne diwo ko dafa diwo ko moom non agent RTS yi ñoo ko moom. Mhm. bâtiment bi bu ko rasental dafa def ko pour boppam. daf ko defal pour agent RTS yi. daf ko def pour ëllëg ko RTS. donc ñun ñëpp nañ ko def suñu moomeelu bopp. buñ ko defee rek ku ci nekk di nga ko jàppee ni sa kër. Mhm. di nga ko jàppee ni alal boobu moom donc càmm gi ak càmbar gi day nekk loo xam day yombal ci ñun. tout à fait uh-huh. euh, tey Youssou ñu gis ne que ne euh, suñuy wax RTS ndaw ñi ràññeeku nañu fi bu baax a baax a baax dañuy wax sax à la limite est-ce que ëpp ñu fi euh, parce que ñi ngi fi nekk ci département bu nekk

mais yàlla dafa def nga ñu am directeur général boo xamante il a très tôt compris ça mm-hmm. bu ma waxee loolu mooy par exemple man ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ñu ngi fi ay ndaw depuis 2016 mm-hmm. moom de génn bitim réew xam na nit ñi li ñuy liggéey mm-hmm. man dem naa formation ànd ak yeneen ndaw yoo xamante ne yàggul on est parti en France il y a même pas un mois dem tv xool ñoom nan la ñuy liggéey xam yan environnement la ñuy la ñuy liggéey xool yen comportement la ñuy liggéey boo xoolee ñoom seen façon liggéey ak suñ façon liggéey mun naa ne du benn parce que matériel lép lépp la parce que compétence yi am fii comme ni ko élément euh, bi waxee sànq mhm. am nañ compétence yëpp ci école sénégal lañ génne am école sénégalaise am nañ compétence yi am xam nañ li war def mais li ñuy jàngal mooy mhm. méthode ak organisation ak discipline méthode organisation ak discipline bépp jeune boo xamante ne tey defal nañu lu mel ni mhm. je pense que ñun ñi nga xamante ne ñoo demoon formation suñu ñëwee dañ ko war a restaurer par rapport ak ñi nga xamante ne dañuy liggéey ñëpp mënuñu dem ñoom xam nañu par ay vague lañ ko def ñëpp dem xool ñeneen ñi la ñuy liggéey c'est bien des fois nga nekk ci benn environnement mais de temps en temps nga génn xam ñeneen ñi li ñuy liggéey je pense directeur général a très tôt compris mm-hmm. personnel bi ñu ci demul formation bu ma mm-hmm. donc comportement yooyu nag war nañ ko mën a intégré ñun mm-hmm. xam ne ñun Sénégal la ñuy liggéey xam ne Sénégal dafa am réalité xam nañu war a comporté wu ba ñi nga xam ne ñoo ñu ko a RTS yëpp te loolu aussi dama ciy remercier waat directrice ñoom DG y a eu beaucoup de aussi tamit côté jeune loolu ça aussi il faut mhm. parce que man yàgg naa ci kër gi nekk na américain bi yàgg na mais gis naa jeunes yi aussi tamit bëri nañ ci kër gi gis naa seen taxawaay gisna naa ni ñu ni ñu ni ñu comporté woo mhm. envers euh, euh, société bi nga xam moo leen jël donc je pense que comportement bi ñu war a am mooy comportement responsable comportement de travailleur je pense que loolu suñ ko defee aussi lépp mën na dem kanam daal dëgg la euh, suñu xoolee sax pose première pierre bi da ngeen di gis ne que ne ndaw ñu ñoo gën a ràññeeku euh, da ngay gis ne que ne ñoom ñoo nekkoon accueillir le président ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon teewee bis boobu noonu loolu juste pour dire que ne ñenn ñi dañu naan RTS mag ñi ñoo fa ëpp mais ndaw ñi ràññeeku nañu fi bu baax a baax a baax te am nañ fi seen place aussi bu baax a baax a baax xëy na nag mën nañu nekk ci yeneen secteur yu bokkut ak toog ci télé bi ñu leen di gis mais ngi ci biir kër gi te macha allah tey Aminata bu ñuy wax aussi tamit yéen tam am na impact bu nara am solo bu muy nara def si yéen parce que yéen a ngi nekkoon ancienne te wax nga ko au départ que ne euh, peut-être des fois ngeen am ay soucis technique foofu nag yeneen yi mbir yoo xam ne ndax tam ku ne ancienne xam ne dafa yàgg te lu yàgg lu nekk nag wax dëgg yàlla dina am ay jafe-jafe euh, tey ñu indi laal leen ci tour bu bees bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko naka bokk booloo bi euh, déjà loolu rek di ba tey di wane ne que ne RTS c'est une famille loolu lañ fay dëggalaat mais impact bi mu nara am si yéen naka lay demee impact bi dafay fait de riis ñun mhm. comme je te disais parfois a am coupure de courant un système d'information bi yëpp problème mhm. du ñu ñu perdre ay données yu bari maintenant suñu ñëwee fi méthode de procédure de travail pas pour moi changer parce qu'on sera dans un même local système d'information des performants ensuite dafay fluidifier liggéey bi ba mu baax baax hein? données yi dina mën a jàll comme il faut et productivité daa day yokk bu baax Fatou wax na ko aussi déplacement bi da doon metti parfois nga am réunion ancienne maison chauffeur yi ñu leen remercier au passage di def va et vient yu bari si biir kër gi yooyu yëpp dafay impacter si si si kii bi tamit si liggéey bi macha allah. maanaam daal day gën a faciliter yéen seen ay biir <laughs> man nag lu ma bëggoon sax euh, madame Fatou Diouf aussi wax ñu mooy tey euh, peut-être dina faciliter personnel bi mais xam nga dañoo teg ay mbir yu bëri euh, ku ku bëgg a sport sport ku bëgg a noppalu noppalu waaw loolu tamit est-ce que du tayal loo nit ñi tamit <laughs> ndax man démb lool moo nekkoon question bi suñu kër ñu naan ma yéen nag dootoo leen liggéey nag yéen seen tur bi boobaa tamit maman waaw si temps de travail bi lañ koy xool waaw imagine toi nga am sa doom crèche bi dafay neex si jigéen ñi dëgg la nga liggéey sa xel dafay daal dëgg la yaa ngi war a dem liggéey si fajar mhm. amoo ko bàyyeel sa doom

ñëpp ñëw si gis seen bopp ñëpp ñëw si sentir seen bopp bien sûr sport bi tam nga liggéey yéen doo toog ba sonn avant ngay wàcc nga jaar defaat de poids moom du fi am du fi amati non du fi am parce que dinañu dem ñu daal di ah, euh, kii euh, mais madame Fatou Diouf damay ñëwaat si loolu parce que loolu question la te dama bëgg ñu indi si leeral pour ñi euh, seetaan rassuré wu ndax nee nañu tey tour bi dafa naka yombal suñu dund ñun léegi nag dama bëggoon xam ba xam dina am peut-être benn je sais pas surveillance la ko mën a wala lo xamante dina tax nit yi aussi tamit di mën nek ci sen liggéey respecté ko baña nek ci yenen ni mbir yi rek yo xamné peut-être mën na la jal liggéey bi. deug <laughs> la maman c'est une très bonne question hein parce que uh-huh. comme li ngay wax xam na ku laaj la même chose. Uh-huh. mais euh, je pense que Youssou wax na ko sànq c'est un bâtiment intelligent. Uh-huh. et changement de comportement itam day bok ci assiduité au travail. parce que dañuy budget deug la ñëppay budget amul na naxaate liggéey mo fi ne voilà <laughs> ñëppay badge <laughs> donc kuy wax badge nag wax ñëw heure wax wàcc heure dëgg la mais nag dans tout ça comme je le disais tout à l'heure xam nga temps bi ñu def bureau doo ko mhm. def sa kër tam ku la wax ne mën na toog huit heures de temps d'affilée ci benn bërëb mënul nekk dëgg la moo tax na ñu sóoraale pour bañ tamit yenn comportement yi ni ñi di lekk ci bureau yeeg mhm. di nekk ci yenn kii ñu utal leen ay réfectoire mhm. niveau bu nekk pour parce que day am di nga jékki-jékki am pause dans toutes les entreprises ça existe le monde Youssou na ko sànq DG dafa am vision parce que dafa tukki dem gis ce qui se fait ailleurs mu yéene ñu ko. te loolu lan nit ki day joindre un peu l'utile à l'agréable di nga liggéey mais di nga am temps bi nga xamné temps de pause lay don bien défini et bien déterminé. Mhm. parce que sa liggéey da ci waru ci impacté. tout à fait. donc pour ce faire moo tax ma am système de budget bi nga xamné dafa am dañuy budget entrée et sortie day am heure. Euh, amenta wax na ko sank mhm. médecine d'entreprise crèche yooyu yëpp ci bien-être famille la. Mm-hmm. parce que xam nga ku wax euh, capital humain. parce que nit ki bala muy meuna a il faut mu dajale lu bari. c'est un ensemble. Mm-hmm. sa xel day dal sa poche am dara. Mm-hmm. sa njaboot wér yow nga wér. nga nek dans un environnement sain. té lolu yep lañu ñu ali en réalité pour bol ko ci tour bi sóoraale ko ci ray parce que buñu wax tour bi rek ni ñu ni bâtiment bi ñu nekk dañ ko réhabilité. d'accord bâtiment bi ñu nekk dañ ko defaraat. def ci crèche médecine d'entreprise xam nga donc pour agent yi ku ci nekk doo am yenn xalaat yi sa njaboot bu feebaree xam nga fa leen di yóbbu mhm. orienté nañ la sa doom boo yoree parce que ñun jigéen ñi xam nañ problème boobu mhm. difficulté boobu mhm. da ngay obligé di fu ne ngay toltalaan wala boo demee sa xel du dal sa gon bu dekk nga woote su la fekkee ne sa njaboot ak sa à côté mais lu luñ la jox danga koy liggéey ba mu jaar yoon donc tout ça nag du tere nit yi xam li leen war mooy lu Youssou wax sànq mooy la responsabilité et ça c'est la responsabilité de chaque personne Je ma mérité que ñu may fay mhm. jox ce bi parce qu'on m'a donné tout ce qu'il faut et on m'a mis dans les conditions qu'il faut mhm. pour réussir ce travail là mhm. parce que j'appelle nañ la sa santé j'appelle la ci sa la salle de sport jàppale la qui sa restauration parce que je à restaurant bu restaurant, la ñuy ci utal def nit ki dinañ ci ut prestataire boo xam tam dina joxe ay plats à la hauteur du restaurant c'est très important parce que loolu yëpp pour productivité agent yi la. tout à fait loolu da fay ne sax ñun fim toll ni dañu am sas au fait dañ ñoo ñaax. parce que tay le directeur général deselatuñu dara mais au contraire ñun ñoo desel kër gi. ñun ñoo wara fournir euh, lu bari bari bari bari pour que résultat bi ñi xaar ci RTS euh, déjà ma nga ko doon def ba ñepp xam ko mais mu gëna a ci cere doli ñeex loolu dina ci gëna a neex. billaay macha allah mi ngi noonu <laughs> waaye nak suñu waxee RTS euh, xeyna télé la. Euh, nit yi dañuy seetaan waaye suñu waxee RTS aussi rajo la nit yi dañuy déglu euh, te rajo boobu dafa am ñu fa nekk

gis seen bopp donc tey ñoom ñëpp dañu leen di jaajëfal à travers jeeg ak këram mais aussi di leen rendre hommage ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni la nii ñi ngi koy def euh, damay ànd ak ba tey cokosam bu dem xool réaction personnelle bi ndax am na ñu ci wax kàddu ya ñu yëkkati la ñuy dem seetaan yi dellu si waat su ko defee ñu mën a wéyal waxtaan bi ngërëm ak sant président de la république du Sénégal li mu def rëy na rëy na na jox na RTS lu musul am si Afrique de l'Ouest la def benn tour dix étages tour boo dernière génération là, vraiment amuñu luñ amuñu sa fay di la ñaanal yàlla rek di la ñaanal yàlla yàlla mi am fay bàyyi la laax yàlla suñu borom di remercier tamit suñu directeur général bi nga ne ne moom am gis-gis bi ba djel projet bi porté ko xex ko porté ko ba li am tay vraiment ku nek RTS rek wala ku nek Sénégal nga nek technicien journaliste lepp rek euh, si média rek war nga fier tay si RTS. Euh, tey ku la defal loolu tamit mënoo leneen lu dul sant ko. et aussi remercier toutes les personnes yi nga xam ne tey ñoo si jàpp ba ñu am ce bâtiment intelligent mais aussi euh, mes pensées vont vers ces personnes ces centaines d'ouvriers ces centaines de techniciens qui ont conçu concevoir ce bâtiment là euh, di techniciens les réalisateurs qui ont géré l'aspect technico-artistique de des productions qui ont xam euh, ce matériel là Nous avons dit que c'est un lac, c'est un patrimoine Et qui dit patrimoine que patrimoine loo xam ne la lañ ko war a jox les générations futures donc ñun ñoo ko war a téye téewin bu rafet téewin bu jekk ba nga xam ne tey ku toog sa kër di seetaan nekk dans ton fauteuil di seetaan sa télé di nga kontaan xam ni que tey bien vrai que le matériel est là le bâtiment est là mais le programme sera aussi là. ñu nekk euh, agent RTS 3 Tamba am mbégte bu rëy euh, xam ni euh, mercredi incha allah la ñuy inauguré li nga xam ni mooy tour bi nga xamante ni moom la RTS daal di tabax tey nak mën nañ japp ni ki nga xam mo tek projet bi di directeur général visionnaire la révolutionnaire la def na lu bëri ci wàllu audiovisuel Fi ma nek ni di RTS 3 Tamba tay ji bo fi duggé matériel dernière génération mo fi nek lolou motax tax ñi ngi di ko remercier di ko féliciter ci lepp li nga xam ne def ci biir RTS mais tam di remercier état du Sénégal parce que yag na jël xaliss def ko ci audiovisuel public euh, pour réformer ko euh, tey so gisee tour bu 10 stages bu nga xam dina permettre tay jigen bu amatee doom mu mun indaale doomam di ko xool mu nekk ci crèche bi alors jigéen xam ngeen ni euh, feebar da ko gaaw a dab rawatina bu defee ay maternité tey dinañu permettre ñuy continuer def sport parce que am na ay salle yu mucc ayib yu ñu teg foofu suñu studio yi yokk na muy télé muy rajo mën nañ jàpp vraiment projet bi projet bu baax la projet bu nga xam ne réformer ne audiovisuel public ci Sénégal mais itam dina tax ñun agent yi nga xamante ne ñi ngi nekk euh, ci RTS ñu liggéey ci condition yu mucc ci ayib ndaxte tey jii mën nañu japp ni li nga xam moy mooy condition yi euh, yok nañ ko bu baax lepp lu nga xam ni kay la lepp lu nga xam matériel la vraiment yiñ ci indi ci RTS yu dernière génération la donc ñi ngi félicité waat ñëpp di félicité directeur général waaye itam di félicité agent yi nga xam ñoy ñooy ci RTS

waye aussi wax euh euh yoo yo xamanteni len nii tamit mi ngi ci gox goxaat yi lolou non yep di am solo su mak ci askan bi ma bàyyi la nga ñew ci lolou merci maman ñoo comme nañ ko waxee suñu directeur général dafa am ben vision bu yaatu mu tel ko taxawal plan d'action la tek depuis 2018 mille dix ba deux ñu commencé defa région yi station régionale de si bari rénové nañ ko def si matériel technique bu am solo ba nga xamante ne qualité programme yeeg yëpp dafay changé commencé nañ Matam rénové nañ ko ñu ngi si liggéey si Thiès 2023 bi yëpp c' était l' année de la rajo dafa nañ rajo yi équipé la waat ba nga xamante ne man amaana euh, tour bi bien que mi ngi Dakar mais ñoom tam gis nañ seen bopp ci changement yi am ci kër gi ñu ko siy diko di ko si sant di xam rek fu mu nekk entretien ak yor euh, yi bagage yi ba mu baax dal mo fi des fu mu nek ni waaw yok investissement yi ba nga xamante ne matériel bu dernière génération dañ am il faut que ñu entretenir ko ba mu baax ci mhm. côté boobu fi mu nekk si la eggalee

ñu ngi gërëm di sant di kontaan si si macha allah noonu tamit la ñuy sant di gërëm bu baax madame Potay moom mi nekk ci euh, côté commercial ak collaboratrice ya fa nekk moom ak collaborateurs yi ndax ña ngay def liggéey bu ama am solo euh, suñu madame Potay nationale la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax madame Fatou Diouf euh, dañuy ñëwaat nag ci xëy na tàggatoo bi mais ci dénkaane yi nga xamante ni dañ ñu ngi koy dénk askan bi nga xam ne tey nag nañu ñëw fii ci RTS ngir teexsu kii nga xam ne moom mooy suñu président monsieur Macky Sall ngir aussi tamit suñu inauguration bu mag mi nga xamné war nañ ko amal dans quelques heures à 16 h lool non yëpp bëgg na nga ñëw ci euh, denk leen ay mbir mais ñaax leen aussi ngir ñu ñëw téwé ko ndax lool tamit day doon lu am solo. <laughs> waaw euh, maman dama ci am mbégte. Mhm. parce que tour bi dafa sori ci ñun. dëgg la waaw euh, képp ku am RTS ci sa biir di liggéey ci RTS rek. Mhm. tour day sori ci yow. dëgg la parce que ñun bi ñuy commencé Aminta wax na ko. Mhm. ancienne maison la ñu commencé. ci bureau yoo xam ne comme ni wax ni la ñu leen daw mbir baa ngi yëngatu wala karo bee ngi jóg bâtiment bi ngi na wala wootal ñu defal euh, étanchéité mm-hmm. tey suñ la tabaxalee tour mm-hmm. nga war ci dugal sa ay agent mu fekk nga nekk directrice capital humain da am mbégte tout boobu ne da koy bëgg partageek ñëpp mm-hmm. da ngay bëgg woo ñëpp ñu ñëw fekkale la ci loolu maanaam santale la ko santale la yàlla la déjà ci fekke bi parce que ñu bari comme Youssou wax na ko sànq fekku leen fi ñoo xam ne xëy na tey liggéeyal nañ ETAS loo xam ne mérité woon nañu fekkee tey tour bi amaana yàlla dogalu ko ñun ñu yàlla may nag ñu fekkee ko faw ñu woo population bi ñu ñu fete la ñu loolu ñu sargal ci suñu directeur général ci vision am ci yéene bi mu am parce que loolu yéene la mm-hmm. maman nit dina nga am sa bëgg-bëgg mais nit bu amul yéene du ko porté mu mm-hmm. ko porté nag Mam wax na ci dem duma ci delu sen ci man fan lañ jaar ba financement bi yegg foofu implication président de la république à travers le directeur général de la république ñu gëreum mom aussi donc ñuy demander ñepp ñew pour ñu sargalé ñu ko parce que en réalité remerciement bi lool la ci ñun agent RTS bi ñu dotee ci cap condition de travail yo xamné daf ñuy ñaax wax nga ko sank euh, ñun ñoo ko desel ñun ño wara liggéey pour audiovisuel public ñun ño wara a liggéey pour sénégalais ni ko amenta waxee sank sénégalais bu nek gis sa bopp ci RTS donc pour ce faire on nous a donné les moyens maintenant à nous de nous investir. tout à fait donc loolu mooy cadre, yi may mujjee di ko tëjee. là, mhm. sant agent RTS yëpp n'ak, mhm. parce que macha mention spéciale aux agents de la RTS. Mhm. parce que instant bii xam nga ñu ci campagne électorale. défi défis ñu boole yëngal yëkkate yëkkateendoo ko bari na. mais lépp luñ ci song rek yàlla da ci def parce que agent yi dañ ci impliqué wu. Euh, gàcce ngalaama agent RTS. donc di leen sargal tamit ci bés bi. parce que ñoom tamit dañ ci def lu bari Youssou wax na ko ci conception bi lu ci bari agent RTS ñoko def techniquement parlant ce sont uniquement des agents de la RTS ñoo par ñoko def ñoko porter mhm. on a fait appel à des anciens mhm. je remercie au passage ñi nga xam tamit depuis commencement projet ba tey ñi comme li ma lay wax retraité nañu mhm. mais pourtant ils ont contribué ci projet bi taxaw. donc RTS la RTS c'est une famille. ñi fi jógee sax defe naa ñoo ñu gën a bëgg sax RTS. donc ñun tam dañuy ñaan yàlla bàyyil leen ko. Mhm. ak nit ñu ko joxee. ñu mën ci jëriñoo donc dañuy demander ñëpp ñëw. Mhm.

Aminata ma bàyyi la yow itam nga tàggatoo ak téléspectateurs yi amoon nañu mbégte recevoir la ci plateau bi. <laughs> ñoo la gën a kontaan maman kontaan nañ torop si plateau bi ñu ngi woo population bi yëpp ñu xamante ne RTS seen moomeel la. ki nekk si biti ki nekk si biir yàlla rek a xam kan moo fi nar liggéeyee ëllëg incha allah tuur bi ñëpp ko bokk ñu ñëw léegi ñu ànd ak suñu directeur général di koy gërëm encore au passage si si xarañte bi yu yokkute yi mu def yëpp ci biir kër gi yëpp ñëpp gis nañ ko li olof Njaay di wax wet di gis bokk ci tur bi ku ko gis xamante ne liggéey la liggéey boo xamante ne ñëpp si jàpp comme di faatu ñu remercier suñu càmmiñ yi nekkoon si gannaaw au passage directeur technique directeur rajo télévision kudim juum mais ñëpp ñu ngi si ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di population ñu teel a ñëw léegi incha allah ànd ak suñu directeur général Garamko ko euh, tertu son excellence le président Macky Sall mm-hmm. ñu sargal ko mm-hmm. macha <laughs> allah xam naa ne dina am solo lool noonu la ñuy gërëmee nag waa Fabes ñoom itam euh, ñi ngi ñuy teewlu waaye aussi di leen jaajëfal ku nekk rek euh, mënuñu lim dañu bañ a matal waaye ku nekk ci fànn boo mën a nekk nekk ci la de leader rek ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, di lay wax ne que ne gis nañu effort yi ngeen di def pour que kër gi gën a mën a jëm ca kaw ca kanam ci lu baax su ko defee ma bàyyi nag suñu yuusu moom itam mu daal di tàggatoo téléspectateurs yi amoon naa mbégte la kontaan ndax dégg naa xale yi tamit yow la ñu bëgg <laughs> xale yi daal nee ma ñoom boolo nee nañ ma Youssou la ñu bëgg damay remercier waa RTS yëpp remercier suñu jigéen ñi tout d'abord damay ba pare di di di gën a remercier aussi suñu directeur général Racine Talla mhm. parce que ñii toog fii nii suñu ay jigéen lañu suñu ay mag lañu mën naa ni mais ay responsabilité lañu la ñu ci kër gi ay responsable lañu aussi ci kër gi mhm. te président dafa xool lu am solo bi muy soog a yore mu dafa xool équité égalité mhm. boobu de pense que Racine Talla daf ci dox dafa dox ci mhm. équité mhm. maanaam boo xoolee RTS tey dix-sept stations régionales la ñu am yëpp a ngi cinq télévisions nationales directrice mën na ci wax lu bëree bëri mun na ci wax fi ba suba duñ ci jógee donc équité égalité boobu wax boo xoolee tey RTS je pense que huit mars bi war na ko li ñu am ci ay directrices ci ci RTS je pense que bëriwul société ko am te loolu aussi lu ñu war a rafetlu lu ñu war a lu ñu ko war a gërëmee la Euh, deuxième chose bi mooy bi ma bi ma doon wax. damay sax Youssou dégg naa ne góor ñi ñooy mujjee revendiquer seen ay. <laughs> <laughs> ci kër gi parce que dañoo jël lépp jox ko jigéen ñi. mais grave jigéen moom moom bu rek lépp baax ji leen. <laughs> mi ngi noonu suñu ay suñu ay jigéen lañu. mi ngi noonu mais dama bëggoon def benn parallèle rek. par mhm. rapport ak par rapport ak euh, li ñu wax buñ ñëwee buñ jógee fii war a ñëw déménager fii. Mhm. dama gis ni Sénégal xam nga Sénégal dafa dafa bindoo noo xamante ni comme équité égalité bi ma li ñu li ñu def ci station régionale yi mhm. li président def maanaam ci wàllu autoroute yooyu yëpp boo koy xayma tey mhm. mën nga ko mën nga am benn parallèle boo def c'est-à-dire que tey Fatou xam na la mooy soo doon jógee tey tey Dakar di dem Touba mhm. lim la daan lim la daan jël ci ambul li nga daan def ci am taa dafa daan bëri ñu dema dema dem xool léegi une heure de jël pour nga jóge fii dem Touba mais man damay xool lu gën a sori lool c'est-à-dire que une heure de temps boobu nit ñi mën nañ ko xool mais tey soo xoolee tey les routes yi nga xam ne ñoo gënoon accidentogène ñi xam ñoo nekkoon Sénégal mooy ba daan dem man mi dëkk ngaay dama daan jóge fii dem dem ngaay jaar àllu kaañ wala nga jaar ñi dem buur dem buur nga xool yoon yooyu léegi ñu bu ñu dem autoroute a péage yi jël en gain de temps bi gën a réduire mhm. mais accident yi dégg déggatuñ ko waxatuñ accident lu bëri donc soo tabaxee bâtiment bu mel noonu tamit mhm. da ngay xool impact bi mu lay jural impact bi mooy mhm. gain de temps bi tey suñu daan jógee fi daan dem ancienne maison donc gën a taamu day wàññeeku soo daan jógee pour signer benn kii ñoom faatu ñu ngi fi da ngay ñëw rek ñu signer la donc loo gis ci ci àdduna muy dox mhm. gain de temps bi bul xool rek bâtiment mais da ngay xool li nekk ci ginnaaw bâtiment mooy li tubaab def petit bout de la lorgnette nga xool li nga xamante ni tey nit ñi mhm. mën nañ ci jëlee loo xamante mën nañ leen jëriñ donc je pense que bu ñëpp ñëpp mhm. parce que au moins dina kër gi kanam RTS kanam te loolu bu ko amee je pense que loolu ñu war a président de la République il a fait des choses extraordinaires il a fait des choses extraordinaires dans ce pays il a fait des choses valeur extraordinaire pour la RTS aussi il a beaucoup d'argent pour la RTS te loolu su ko mënee ginnaaw yàlla ak directeur général Racine Talla donc ñun en tant que jeune en tant que femme en tant que agent de la daal ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko wax yeeg fi mu teg tànkam foofu la mhm. te lépp lu mu sumb yàlla na ko suñu borom dimbali amiin yaa rabbi euh, lii nga xam ne mooy xew mi tey suñu borom yóbbuñu teeg jàmm incha allah incha allah ana su paakate nag gërëm di <laughs> yëpp di allah ni ñu xaar daal ci kanam incha ñun ñoo leen di sant di leen gërëm parce que ni ñu koy waxee rek yéen a yoon bi euh, def li ngeen war a def ba tax tey bu ñu ñëwee rek ñun dañuy mën a identifié wu dem ci li ngeen ñuy xaaree ba tax na euh, madame Fatou Diouf ñi ngi lay jaaj jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi waaye aussi ci wàcce bi sa bopp xam nga nekk ak benn agent yi te bu la neexoon wan ñu ne yaay suñu directrice tamit euh, mi ngi noonu dañ lay jaajëfal Aminata yow itam ñi ngi lay jaajëfal mu mel ne macha allah ca tuuma suñu bopp mais directrice yi moom am nañu fi à gogo donc sant yàlla rek la ñuy daal di def ci biir sant googu aussi damay remercier euh, Muna création moom mi nga xam ne tey moom moo ma solal ngeen mën ko jot ci 77 044 89 53 Muna création numéro mi ngi noonu woo leen ko pour pour anango yu rafet yi bu ngeen bëggee dem euh, ci réewu Afrique rek lépp lu ngeen fa bëgg da koy defaral bu baax a baax mu naa mais ma remercier Thioro Samb euh, ci réalisation bi remercier Aram Sembène ci coordination bi Ada si montage bi euh, Awa Kanouté ci maquillage bi ak ki nga xamante ni la nii moo di Clarisse ci li nga xam ne moom moo di son bi ñoom ñëpp lay remercier peut-être suñu limee ñëpp duñ leen matal mais yàlla seede na ne fii ñu toog ni bu ñu sañoon agent bu nekk dañ lay tudd tur tudd sa sant wax fa nga dëkk sax wax seen waa kër juste pour nga bég pour nga kontaan ndax seen moomeel la euh, te à chaque fois dañuy jóg ci di leen koy wax waaye nag loolu dafa mënul nekk moo tax dañuy jaajëfal ñëpp ma dem ba réaction nak fekk fa Ngari Faye euh, dal di koy remercier mais aussi dal di koy jox remerciement bi mu joxal mako wa waa rédaction ñoom itam ñing ñi ñuy bu baaxa baaxa baax merci beaucoup à tout le monde euh, jaajëfal nañu leen jox leen rendez-vous tout à l'heure ci euh, inauguration bi ngeen ñew teewee ko ak ñun and ci ak suñu président monsieur Macky Sall ñu remercier au passage ci liggéey bu am solo bi mu def ci kër gi mais aussi di remercier suñu directeur général ndax mom itam moy le réalisateur bi nga xamante di ni nii lu ñuy xalaat rek macha allah xelam ko ba mu bëgguñu ko defal donc yal na yàlla guddal fanam bàyyi kook ñun bàyyi kook njabootam yéex ko aax ko ndax ñun itam bég nañu ci moom kontaan nañu ci moom nee nañu daanu dajul suuf nit kenn mënul matale lépp kenn mënul euh, ñëpp ne waaw waaye li ci ëpp solo mooy ñii fi gën a rëy nee nañu waaw bég nañu kontaan nañu kon monsieur Racine Talla yal na la yàlla defal jàmm ñu dem euh, dellu siwaat ci beneen numéro waxtaanee la den incha allah rendez-vous tout Journée historique à la RTS. Ce mercredi 20 mars 2024. Inauguration de la nouvelle tour R 10, suivie de la réception de l'ancien bâtiment entièrement réhabilité. Par son excellence, le chef de l'État Macky Sall président de la République du Sénégal. Et je tiens à vous rassurer. Avec ses infrastructures futuristes, le chef de l'État installe la RTS dans l'ère postmoderne. Mobilisé derrière le directeur général, le personnel en